mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci mbiri Mamadou Diop ñu gën ko xam ci Diop ISEC ginnaaw rek bi nga xamante ni tegoon nañ ko fi loxo ci mbirum viol sur mineur ba daal di koy tëjoo kaso foofee ca prison bu Rebeuss tem daal di mu jaat amaat benn liberté provisoire bu tax mu daal ñibbiwaat ci njabootam googee waaye nag ay fan rek ginnaaw bi nga xamante ni am na ko liberté provisoire boobee Mamadou Diop di patron group ISEC bi su moytuwul dina delluwaat foofee ca kaso nga mu jóge woon na loolee ko nara waral moo di collectif yi nga xamante ni ëmb na liggéeykat yi liggéeyee foofee ca école am di ISEC ñoo koy laaj lu toll ci fanweeri million mu nekk ay arriéré de salaire yoo xamante ni toll na ci huit à mois yoo xamante ni kenn fayu leen ko kuréel gi nag bokk na ci leneen loo xamante ni ñoo koy ñaawlu moo di absence de contrat de travail yi nga xamante ni job ISEC waroon na leen ko xaadimal ginnaaw rek bi nga xamante ni nañ ko Ousrane di groupe ISEG waaye tamit ak ki nga xamante ni moo di PDG bi di mamadu Diop collectif gi nag nar nañoo organiser rek benn conférence de presse ni ki mercredi gi foofee ci loko yu ISEG ci teewaayu organisme de défense des droits de l'homme ngir daal di gën a indi leeral ci mbir mi nga xamante ni dox na seen diggante ak seen patron bi di Job Isaac mu di fanweeri million yoo xamante ni war na leen koo fay ci fàttali nag Job Isaac mu ngi am rek liberté provisoire niki le 28 juillet gi nu génn ci dossier bi nga xamante ni seqoon na ko ak kii di Dieyna Baldé bu jëmoon ci wàllu viol sur mineur suivi de grossesse loolee waraloon nag ba ñu tegoon ko loxo le 12 mars 2020 gi nu nekk waaye nag ci ginnaaw Balde ak famem dal di retiré plainte bi nga xamante ni dugaloon nañ ko contre Diop ISEG